mu ne moom mooy joxe séddale ndeyjoor ak ak càmm ba kullu ma xat bada famin ataayaaw lépp lu biir rek lépp lu feeñ rek famin ataayaaw ci ay mayam la bokk loo leen gis lu ne rek bàyyi leen loolu ci may yoon bii rek la bokk ah kon gars yi gars yi nañ nangu yoon ci wàll may boo fi gis rek may yoon bi mu ne fa kaay naa di fa aadamu naka aadamu woon mu ne fa Musa Musa fa Isa Isa summa xibbi sama topp sama sopp Muhammadun bihi ci moom utrifu lal mayees ci moom Muhammad boobu di sama soppe la yàlla mayee xam lal amaanate wal wafa mooy le fait que ñoom ñu mën a yenu kóllëre ga mooy yonent yi nangu yàlla yónni leen nangu yàlla jox leen responsabilité ak charge al amaana mooy la charge amaana mooy yàlla yen la dara lu diis nga nangu koo yenu loolu la ñuy wax amaana ñu ne yen bi leen yàlla yen mooy kóllëre googu noonu amaana googu noonu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo yàlla yen leen ba pare wal wafa te yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci moom leen dëgëree yàlla aar leen ba matal seen ba ñone ñu matal seen kóllëre mooy le fait que yonent yooyu mu mooy ñu woon yàlla wala wafa mooy fidélité le fait que ñu matal ñoom seen kóllëre mu ne muñ boobu ak moyens yu ñu utiliser ba matal seen kóllëre ba respecter seen diggante ak yàlla bàyyi nee ne tamit yonent yàlla moom saa sam lañ sukkandiku moo leen conseillé moo leen dimbali ba ñu matal seen kóllëre loolu baatin la loolu nit ñi xamuñu ko woon bëri xamuñu woon loolu dakate ci baatin moo leen doon dëg dëgëral ndax yonent bu ci jaaxle ñëw arrière rek ah man ko mu jëm leeru xaq si moom di wax ak yow dama ne Moussa mu ñëw luyel bi ah ayuba luyel bi nga nga jëm taxawaat kon yonent yàlla moo sa comme kii bu gaay ah kii leen wa maari u lii mabni lil majhul la forme bi mooy la voix passive de ci musique wa maara a xam musul waxoon wa maara a mooy musul gisoo wa maari u giseewus gisee suñu gisee suñu mooy musuñoo toog ba gis min xayril anaami ku gën ki gën ci mindaafo ni mooy kan Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne musuñoo gis ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah ndax moo gën ci mbindeef yi siwaa lu mooy zilli yi takkanderam gisee wuñu gisee suñu ci yonent yàlla moom masaa sam mi nga mooy moom mooy xayrul anam lu mooy takkandeeram la nit ñi di mais mu ne kenn gisagul yonent bi takkandeeram rek laay gaa yi ñu ci bëri ñi xam yàlla nag dox xaqiqatul Muhammad ñoo ñoo janoog jëmmi yonent bi dëgg-dëgg alhamdulilah ndax ñee ñi ngi janoog takkandeer gi mooy Muhammad doomu Abdullah loolay takkandeer bàyyi ne maahi moom mooy effacé maahi mooy kii effacé lan lay effacé zila zilaali musaqifa moom mooy effacé takkandeer yi ndax moom mooy effacé takkandeer yi koo xamante ne effacé ne takkandeer yëpp ba takkandeer yi jóge fi ban takkandeer moo fi des du ko sax moo fi des ndax yonent ci yàlla moom saa sam day xaqiqa li lay wan ne xaqiqatul muhammadiya moom la mooy moom bu muy dund amul woon takkandeer kon moom mooy dëgg dëgg gi am am jëmmi am ji leen ñeneen ñëpp ay takkandeer la mu ne nag gars yi takkandeer googu amu zaahir bi mooy takkandeer bi waaye baatin bi maanaa bi mooy dëgg-dëgg ci kon lee mooy takkandeer bi lii mooy jëmm ci te jamono ju ne rek takkandeer gi day daf ñuy nekk takkandeer bi parfois midi mu gudd parfois suba mu tuuti ah parfois mu doon ñaar takkusaan ñaar lay doon takkusaan takkandeer lay doon ñaar da ngay toog sax mu mu sut la yow waaye takkandeer rek la am sax dégg ngeen woon ah xam nga ay ñoom waaye dañuy yàlla dina may nit ba nga naan wuu kii est-ce que suru yoonu di waaye naka leeral la rek dina may nit ba nga yéemu ci yàlla ba nit ci yàlla fekk tamit moom fekk ne rek ndax weesul xar ni keroog ba nga xamante ne Aline ak Aboubacar dem nañ ci moom mu ne leen ndax yéen ñaar mos ngeen gis yonent bi te yonent bi dafa ne woon manteau bi su ma dee yóbbul leen ko moom yóbbul leen ko mu ñaanal kooku munul kooku kooku deewut kooku kooku dee yooyu saa sam génn àdduna gars yi fàttali bu manteau bi yóbbul ko ko kooku di leen laaj ndax mës nañ ko gis xam nga loolu dafa doy waar yéen ngeen gis Cheikh Mamour ay année exemple gis Baye Niass ay année nekk ak moom dund ak moom ay mission yu bëri man man taxaw fee ci àll ba toog lu yàgg Cheikh Mamour nee na bis moo génnee ngeen jël sama manteau bi ngeen indil ma ko ngeen indil ma ko yéen yéen ñaar ngeen ñëw ci man ah ne ma Cheikh Mamour nee na dafa ne ma bis bu génnaat dina jël manteau bi lan la ko jox nga julli ñaanal taalibe yi foo ñaanal yàlla dina ko dina ko sauver ëllëg yow maa xam def sax après yéen ngeen ñëw ma taxaw julli julli ku yàgg ngeen ne waaye yéen koy julli yi seen mënal ma ne leen yéen a gàtt wës naru mu woon pare julli mukk lu may yàlla lu bëri ñëpp àjjana te loolu bàyyi woon ba ma pare julli kon xeet bi képp ku nar a fasoo am ba yow ma xiyam muy julli day dem àjjana dinaa ko am waaye nag fi ngeen ma interrompre foofu la rabu bëri am comprendre ngeen léegi yéen ngeen jaaxle ne yii kii spiritualité dem for na de kii mooy kan mi kii mooy kan léegi ba ma xam ne leen nag yéen yéem naa leen xam naa ne yéen daal garaaw ngeen waaye man maa leen gën a garaaw ma daal di leen ne yéen est ce que sax mës ngeen gis ma cokkaat leen ndax mës ngeen gis Cheikh Mamour ngeen xoolante waaye nag yéen jàppaat confiance ah yow kii daf ñuy nax waaye kii xam na li muy wax ñun ndax mës nañ gis yonent yi ñun nga xamante ne yow mando bi ñoo la ko indil te danga fàttali ne yonent moo ñu ko def ah yow ñun ñi xamante ne ñoo xeexal moom ba seen jaas yi takk ci deret yi takk ci jaas yi woogul nga naan ñun ndax mës ngeen ñu gis ah yow ñu lay xeetal ngay ji commencé di weegu Aboubacar Omar ak Aline la woon ba mu leen waxee loolu jékki-jékki rek Omar am lu yëg-yëg yëg-yëg ma ne leen lan taraya ila zibli yéen ñaar yaa Aline Amin Abi Talib mosoo leen gis yonent kon bàyyi di wax dëgg mu ne kenn mosul gis lu may takk ndeer yonent mu ne nit nit ñi gisuñu lu may takk ndeeram nit ñi ñoo gisul takk ndeeram waaye ñi simmee ko ci mbubu nit nga gis nañu na ñoo gis yéen léegi ba loolu amee mu ne leen lam taraya ila zilli yi yéen ñaar gisoo leen lu mooy takk ndeeram da ngeen ne ngeen gis ne gisoo leen lu mooy takk ndeeram kon li wax bi ute mel ko nag wax weesu tànn mooy ku lu tax nga wax ñu loolu mooy dama xam ne takk ndeer yooyu dina ngeen te man jëmmi jëmmi yonent bi ndax man gis naa yonent bi benn yoon ndax yonent bi kenn du ko gis ñaari yoon ñetti yoon benn yoon ñu koy yàlla loo bu changé yàlla kenn la léppam lenn benn dund la benn deel benn tekki benn lépp lépp benn lay doon lépp benn lay doon mooy gisoo leen mooy takk leeram gars yi di di kiiwaat mu affaire mu demee mu ne leen yéen léegi ma laajaat leen mu joxaat leen beneen jo technique bu bëree yoo xam nga cabaxal moom joxaat leen beneen mu roof ak ñu rocciwaat mu roofaat beneen mu ne leen keroog xel ko nan ngeen def bu ñu tojee ñu ñu ñu ne xanaa naqarlu ko rek ak jooy mer kii ak yooyu mu reetaan ba mu reetaanee ñu gis ne amuñu bëñ rek Omar comprendre rek sukk jooy am Omar nandite la li gars yi naan wax nandite dafa teel a utile dafa dafa dafa ree rek amul benn bëñ rek Omar comprendre rek sukk jooy mu ne gis ngeen man doonu wàccee dund yéen yéen ñi ne man xarew ma dajuma li ngeen def sama bëñ yëpp laa tekki ngir faral yónni yàlla moom sax ngir supporté ko ak ak ak métier bi ñu ko def yéen ngeen nekk final ay kii rek gars yi sukk jot amirul mu'minin Omar waat ne maa ngi jiñ ci sama dund maa ngi jiñ ci yàlla ne kii mënuma kaa jiite man mënuma nekk amirul mu'minin te kii nekk mu ne ko yéen yow la yàlla jiite def rek moo tax jiite leen ay nit taxul nga gën leen kon ngeen gis ne nekkate ñooñu ñëpp takkandeer ngeen ci salaat lam tarayaa ilaa zillihi lam tarayaa duyel la lam tarayaa gisoo leen yéen ñaar duyel la gisoo leen yéen ñaar ilaa zillihi léegi ñu continuer mu ne bi xaari xira in qad axatku risalatun min allahi mahma jaa mutaakifa bi ngeen faral di dégg ci kër bi xaari xira in qad أتته رسالتان من الله مهما جان فكفى بها إلهي أم ينتظر أتته رسالتان من الله مهما جان فكفى أم ينتظر ذكر بوبنو mooy ذكر bu ñeen wala dégg mooy bu bi xaari xira in ci xunt bu ñu wax xira xira xat atat ku dikkalees na ko kooku risaalatun mooy risaala bi minallahi mu jógee ca yàlla mahma jaamuta ak ifaa waxtu bi nga xamante ne dikkal na ko fa risaala bi mooy ab yonent lu fekk mu war a doon yonent mu ngi ko fekk mu nekk mu ak ifaa mu doon def ixtiqaaf ixtiqaaf mooy xeetu jaamu yàlla boo xamante ne nit day day nit day kii a nazirun moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xaaru xilaaf gorot kuntu bi ñoo xaaru xilaaf di dëgg nag lii impacté na ci dars bi parce que dars bi daal na gën a bëri waaye combat bi tax dars bi daal kenn ñëw li daal day na waar ah quinze personnes xaw ma douze personnes ci dars ñaaw na de jeex ah loolu yaa ko jeex te jeex na lii day continué ah waaw te lii day continué ah lii day continué te moom su daanee lekk xaalisam ah moom yow ah wéeru xiraa in ci xaaru xiraa mooy grotte bi ñuy wax xiraa kuntu bi ñuy wax xiraa xat atat ku risaalatun dikkal na ko foofu le la prophétie minallahi mu bàyyee ko ci yàlla mahma jaaw ci waxtu bi nga bi ko loolu doon dikkal mu ta ak ci faa mu nekkoon di def ixtixaaf mooy wéetal yàlla bi ngay wéetal yàlla ci weeru koor loolu la ñuy wax ci ixtixaaf man yéen saa sa dakaraan def mooy ixtixaaf ixtixaaf wéetal yàlla bi ñuy wéetal yàlla ci weeru koor ndax alxuraan soo xoolee weeru koor la keroog bu mu koy def dem ci gorot ba di fàttaliku yàlla di bàyyi xel yàlla mi ko bind loolu la ñuy wax ixtixaaf mu ne xat atal ko risaala mahma jaaw mu ta ak ci faa en tenant le ixtixaaf fa jaa nazi naziran mu daal di dikk naziran nekk koo xamante ne kuy xuppe la daa'iyan nekk kuy woote ci yàlla wa mubashiran nekk kuy bégale ci yàlla wa arshada nekk kiy kawel bi yite yi man xat kaana képp koo xamante ne nekkoon nga xabluwu jiitu ko te astafa mu nekk moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk ki lay bëj ki lay bëj xam ngeen bëj mu doon ki nga xamante ne moo lay bëj képp ku mës a jiitu ci yàlla ñi ko jiitu ñëpp moom yonent yàlla moom saa sam ak ñi ñëw ñëpp moom mooy ki nga xam ne moo yëkkati seen nit ci yàlla waaye moo leen bëj bëj xam ngeen bëj bëj bëj bëj bëj bëj mooy gindi nit xel bu tooy nga jubbanti ko loolu lay bëj wasalla te moom moo julli ci yàlla julli na moom yonent yàlla moom saa sallam ginnaaw bi wasaama woor na moom yonent yàlla moom saa sallam waaye woorul n'importe quelle période wasaama asayfa dafa woor ci période noor bu tàng mooy noor noor bu tàng mooy noor bu ànd ak mbooya ngelaw li tàng yëpp mu mbooya mu ne yonent bi wooroon na yàlla ci mbooya kon kooku jaam yàlla dëgg mu ne xajja mooy ajal na yàlla mujaahidan mu doon koo xamante ne kuy jihaadal boromam la wa zaka joxe na azaka wa shaada kawel na diina diine gi moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam kawel na diine bi waaye wal kaw na sa te saqafa waaye kawel na kawnu bi moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yéen a ngi dégg waaye mu ngi kawelee kawnu bi ma te saqafa ci indi justice ci indi liberté ci indi équité ci indi yamoo al adlu ci indi al musawama ci indi al adlu ci indi ñite mu ne moom moo yëkkati kawnu moo yëkkati adduna moo defar humanité ci defar ci yi mu defar ci yi ci la kawalee ci la kawalee lépp sallallahu alayhi wa sallam wa jahadate jihaat na fixra inda badrin muhammadin sal muhammadu sallallahu alayhi jihaat na fixran fixran mooy jihaat na benn xeet bu ñu wax fixra mooy waa bani Quraysh dañu wax fixr dégg nga waa bani Quraysh ñoom ñooy fixr fixr ñoom la ñu wax xeetu fixr jihaat na xeetu fixr bani Quraysh inda badrin ca xare badar keroog moom muhammad yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam te fekk wa jibrilu jibril alayhi salaam aw mikaayil wala sax mikaayil fii nekkoon na nekkoon nañu ci xare boobu takashafa doon ku koy fi doon ñu koy féeri mu ne moom yonent bi moo jixaar moo xeex xeetu fixr moo xeet bani Quraysh nan la ñu wooye fixr comprendre mu ne moo xeex xeet xeex boobu keroog ca xare Badar te fekk ba mu leen di xeex Jibril ak Mikaayil teew nañ te feeñal nañ seen bopp yonent bi takashafa mooy feeñal nañ bopp seen bopp teewuñu dimbali ko rek xamuñu nan la leen dimbali mais feeñal nañ boppam seen bopp yonent bi ba xamal na ko ñëw na ñu ngay dimbali kazalika naka noonu israfil ku ñuy wax malaaka ñoo israfil mooy malaakal mawti israfil mooy malaaka bi ñu rey nit mooy israfil jibril mooy jibril mooy ki nga xamante ne moom ci yonent yi lañ koy yónni mooy dox mission yu yàlla yu mat mikail mooy ki wàccee taw bi ki wàccee wërsëg bi wërsëg ci seetale wërsëg bi asrafil mooy ki nga xamante ne moom mooy rey nit ñi Azraïl mooy kii séddale taw yi ngelaw nekk bi ngelaw yeeg yi mooy Jerevan soo xoolee ñeent awul ak zaalimaat melo yàlla ya jërëjëf waaw kazalika Israfil jaa mubarisan mu ne naka Israfil mooy malaakal mawti keroog de moom it dikk na jaa dikk na mu baarisan di léwatoo comme ñëpp dikk na di léwatoo di xeex si comme gars yi xam nga ne mawti sax isa malaaka bi séddale wërsëg yi mën na ne ñëw na badal ndax am na nu muy demee mu séddale wërsëg jibril am na nu demee moom yonent bi ak intérêt ak yooyu ak mission waaye mawti moom leen rek ko intérêt mooy rayaat xam nga ne moom su dugg dëkkee rek moom ga su duggee duggee rek ci xaral mooy xamal ne yow fay ñàkk dee rek mu ne saxaaba yi yéen di sa saxaaba yi bàyyi nee na saxaaba yi nettali nañ ñu ne keroog da ngay dégg benn dégg da ngay xeex ak nit rek nga dégg dégg ko dem ba koy rey rek mu ne mu ne kër sa kanam ci lañ xam ne ne am na borom wol ni fa nekk bàyyi ne képp ku ñu dóor sa yàq biir day tojat ci biir loolu graaw dañu am doole la ku ñu dóor dëgg sa yàq biir ñooy tojate ci biir waaw mu ne loolu la daan waaye dóor yi doo ko dégg waaye dóor fàtte ñu dóore rek nga yëg ne dóor la ñu ne da ngay dugg juróom juróom-ñaar juróom-ñaareelu suuf dugg ba ci biir ndax ndax dóor dóoru boole bi noonu lay noonu lay mel loolu maanaa la boo xamante ne kun la dóor métit ki dina àgg ci sa juróom-ñaareelu suuf moom la déggeen wax ah waaye mosoo leen gis ñu suul nit ñu koy sulli wala ngeen koy gis ñu gis puusal jëm jëm maanaa la jaa a mubaarisan dikk na moom it mubaarisan di liwtoo di xeex si kazalika naka is azrail malaaka bi ñuy wax azrail buy séddale ngelaw yeeg yooyu buy tasaare ngelaw yi lil xar bi ñëw na ci champ de bataille ba ci guerre ba lafafa moom it nekk di kuy yëkkati loxoom pour xeex boobu di fa ñëwul mu ne pour séddale pour sonni ci ngelaw yaa dafa ñëw yëkkati loxoom moom it xeex si kon malaaka yi mat yëpp yàlla indi na leen badar te badar badru mooy weer te weer mooy tax mooy tax xare Badar kenn du ko woon dana génn yéen kenn du ko woon génn comprendre ngeen Badru mooy weer te yéen it mooy weer moo tax xare Badar mooy ñu kontaane xare bu gudd nag mën na leen a gañe waaye Badar bu ñu yem gànnaar Badru mooy weer te weer bi mooy yonent kon lu koy daane te weer bi te yonent bi suy xeex comme mooy xare Badar mooy xare wu yonent bi ndax mooy Badar kon foog ko gàngan gànga gàngooru yàlla gi yëpp ñëw xeex la ko looloo tax ñëpp ñëw waaye yeneen xare yi jaay yi loolay maanaam ngeen xamee ko bi xamsati alaafin ataw bisharatan wa nasiruhu mawla albaraya waqad kafa bi xamsati alaafin mu ne malaaka yi ñëw nañu dikk ànd ak juróomi junni yeneen yi xeetu malaaka ñoom ci ñëw renforcer leen ay confession bi rëy ah mais xam nga xare ba daal nettali naa leen ko ci jaami jawaab yi téere boobu firi naa xare ba daal benn dara waaw mais dafa neex ñu ngi ko bàyyi ci liggéey waaye bu ñu ñëwee ñëw ko kii fas bi jóg xam nga yooyu firi naa ko di nettali histoire bi bu mu doon ni mu doon demee ak ni ko bàyyi wooyee firi naa ko mais après incha allah dinañ defaat dara ci loolu mais xare ba dara neexoon na dañuy fàttali ak fas yaag ak xare bu ut ba ba ñu dajee ba ñu demee ba ñu yónnee ak ba bàyyi jooyee ah bàyyi sax jooyee ci biir xare bi bàyyi di expliqué bu bëri ay bàyyi moom mën na expliqué waaye moom it da ngay xam ne kii dafa mel ni ku ko fekkee mais keroog laa am lu ma naxari keroog ba ñu defee lii waay waay waay ñoom du bon bi dëkk na sell dal na sell ñu ne mbir mi la bàyyi mel ni ku jëloon affaire yi di di di tam di indiwaat histoire quoi waaw mu ne bi xam sati alaafin xam ngeen ñaata malaaka yi ñoo fa nekkoon xam ngeen yéen ñaata xare la xare yi mu participé boppam 19 guerre te 19 mooy bismillahi rahmaani rahim ci la participé yonent bi benn benn yoon la musa rey nit Ubay ibn Xalaf kenn la musa rey ci loxom te xam ngeen kooku kooku ba mu koy rey nan la demee yonent musu rey kenn xare ba doon rey ba ko daan tànn bu nekk ci ginnaaw def ay ñaanam yooyu daal toog di jox gars yi conseil yonent bi yàlla dëgg dëgg nag dëgg dëgg ku xel ku ne xam ne ne waroo xeex kenn mu xeexal rey ndax comme jëmmi yërmande la moom suñu nit yàlla kon noonu li ñu wax xamuñu ndax yonent bi rey na le prophète a versé du temps il a tué déedéet il n'a jamais tué tué mais bàyyi nee na radda dalaala dafa dafa sori réer réer dafa dàq réer réer réer réer la sori la dàq waaye musul xeex musul fayu dafa sori réer réer léegi yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam moom dix-neuf xare la participé boppam yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam boobu kenn la musa rey ci dundam ndax nee na la moom léppam kenn la yàlla rek lay wéetal kon munu rey ñaar kenn rek xam nga kenn ki mu rey mooy mooy mooy mooy mooy mooy kenn kenn kenn ki mooy sa bopp soo reyee lépp dàq lépp dàqal sa bopp dàq nga lii dàq nga lii lan moo war a def moo tax yonte yàlla Ibrahima keroog boo nga xamante ne nekk na ca xunt ba sanctuaire ba di jaamu yàlla moom mu ñëwee fekk gaa yi yàlla yu bëri yëpp mu dal di rey yàlla yi rey yàlla yi rey yàlla yi daaneel yàlla yëpp dégg leen fii nag ba mu daaneelee yàlla yëpp tas xërëm yëpp mu daal di sem jël semaine bi teg ko ci yàlla bu mag bi wékk ko gars yi ñëw ne man fa ala xaasa bi alihatina xaala ah sama fata yaskuru yuqaalu lahu ibrahima afa alta xaasa ñu ne dégg nañ benn fata benn ndaw boo man den daal moo doon moo leen doon dingat te kooku ibrahima lañ ko tuddee indi leen ko ala ayuni naas ci kanamu nit ñi ñu nit ñi mën a gis seede li mu def indi leen ko adduna yëpp seede li mu def moom Ibrahima gars yi wax loolu seen nafaar li yuubu te yàlla di ko nettali ci alxuraan indi leen ko pour adduna seede ñoom ñëpp seede li mu def nii ni mu rëyee Ibrahima yaa def lii fan fa alo kabiru Ibrahima déedéet au contraire yàlla bu mag bi moo leen rey est-ce que dégg ngeen wax ci mu ne yàlla bu mag bi moo leen rey de man reyu ma leen ñu ne ko kan mooy yàlla bu mag bi mu ne mu ne mu ne ah loolu semaine baa ngi nii yàlla bu mag bi moo leen rey gaay ne waaye kii dafa mën a rey kenn ah yow yaa leen rey kon ci loolu rek moo leen waroon wan ne kon daanu nañ foofu rek ngeen njëkk a weddee seen bopp ba ñëw ba mu leen ne yàlla bu mag bi moo leen rey te mu jël semaine wekkil ko ñoom nanguwuñu ne kooku mën naa rey te ñu koy jaamu waaye waaye dëgg dëgg dëgg ñoo nga xam ne ñi ñoo dof alxuraan ne ñu daal di toog biir waxtaan seen biir ba ci yàgg rek rek defaat ni waaye ci def ñu bëgg a fon dafa ñu ndax moom la rek xëccaat ko nag indi ko problème rek taalal ko safara noonu la mbir ma demee woon waaye xam ngeen yàlla bu mag boobu lu muy firi mooy dinaa naa ba nga dàqee yu ndaw yëpp lépp lu dul yàlla nga dàq effacé effacé mu jël sembin bi teg ko ci bu mag bi mooy yow yow bu mag bi rey ñëpp yow nga rey sa bopp loolu lay firi loolu la abu bakr mu ne mu ne bi xamsati alaafin dikk nañ nekk juróom juróomi cinq mille malaaka atawu ñu daal di dikk ñoom bisharatan ngir bégal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jullit yi wa naasiruhu ngir dimbale ko waaye ñu dimbali ko wala boog dimbali nañ ko wala boog dimbali na ko kan moo ko dimbali mawla boromam albaraya bi nga xam moom mooy mooy boromam bi ndéef yi ah waxat kafaate moom doy na ko dafa ne ginnaaw ba mikaayil ñëwee jibril ñëw azrail ñëw ñii ñëpp ñëw ak cinq mille malaaka mu ne xam ne ñii ñëpp ñëw nañ bëggal yonent bi ak dimbali ko mu ne waaye dëgg dëgg kenn moo dimbali yonent bi du cinq mille du junni du ñaar kenn moo leen dimbali mooy boromam moo ko dimbali du ñii ñëpp mu te te moom boromam doy na ko doy na ko dimbal mu ne même ñooñu suñu ñëwul la woon sax boromam doy na ko dimbal te yàlla dañ ko dimbal loolu la bàyyi wax moo tax kon ci ndimbal bi ko yàlla dimbalee xëy na ci la sécurité bi ñëw ñeneen ñi ñëw waaye yàlla dimbali na bu njëkk yaa ngi dégg ndax wax na ko feneen suratu tawba mu ngi naan yéen ci yàlla mu naan soo leen ko dimbaliwul sax yàlla dimbali na ko moom comprendre abu bakirin al ali abu bakiri al ali abu bakir bu kawe bi imaamu mu ne abu bakir tamit bu baax la waaye mu ngi fii ñi ñoo jàppale woon yonent yi déglu leen abu bakiri abu bakir al ali bu kawe bi al imaamu ki nga xamante ne mooy ilimaan bi wa sayidi ak sama sang kan la abu xafsin doomu baayu baayu xafs xafsa xafsatu la ñuy wax waaye abu xafsin dañuy xasaf taamar buuta bi nee na abu xafsin su dee daa ko doyul abu xafsatin waaye abu xafsin xafsatu la ñuy wax waaye xafsi la ñuy mooy doomu omar bu ñuy wax xafsa ñu ne baayu xafsa waay waay dimbali woon ni yéen ci yàlla moom saa nan ko fàttaliku kan la Seydina Omar kan la alfaaruq mooy tàkkali diggante dëgg ak fen alfaaruq xam nga jaasi bi day ñëw tàkkali ci digg la ne su tàkkale ñu ne diggante dëgg ak fen ah su defee nii fen dem rek dëgg des rek wéetal yàlla taxaw te jaasi tamit alif la taxaw jaasi taxaw bi dëgg taxaw wéet wéetal yàlla ñu ne alin nag mooy borom dun xaaf dun xaaf mooy jaa jaasi ji am ñaari wéte bi bu am ñaari corne dun xaaf tamit lii la def soo gisee lii lan la ñuy jël laa am ku war a jaamu ku ñu laa koy mooy dëgg mu ne abu xafsin baayu xafs al faruq ki nga xam ne mooy tàkkali dëgg ak seen mooy Seydina Omar xibbi di sama soppe man safa kii moo seetal waay ah bàyyi ko bëggoon na Omar ngir li mu sonn ci diin wa Ousmane ak Seydina Ousmane zu nuuree ni borom ñaari leer yi ndax ñaari doomu yonent doomu yonent bi yëpp Ousmane moo leen denc yonent saa sam ne su ma yàlla doon may junniy doom ñuy dee kenn par kenn ku ci dee dinaa ko ram dinaa ko may Ousmane su dee ma remplacé ko sama kon kay loolu bi ci dellu ginnaaw mooy je ne regrette rien politiciens yi dañuy wàccee kenn wala ñu dara ñu ñëw indi ci ko télé ñu ne monsieur le ministre mu ne je n'ai aucun regret ay wax la de il a regretté bàyyi wax rëy rëy yooyu nit dañuy regretté yonent bi rek mooy def wala yàlla def moo ko du regretté wala nitu yàlla waaye ñen ñëpp dañuy regretté ñun ñii ñëpp dañuy regretté waaw ñun dëgg suñu démb nag su ma xoolaatee mbir damay regretté suma démb daal donte defuma dara lu bon waaye rek damay regretté dara dama ne mënoon naa gën a rafetal laa jëmale ci yàlla mënoon naa gën a sonn ñu ne waa àjjana rek loolu seen regret mais waroon naa gën a jox yàlla ci loolu rek mooy regret moo tax ñu ne àddina si na lii du regret wa Ousmane Zounouré ni borom ñaari leer yi wa sin wu kat ata alim wa sin wu ak doomu baayam ba mooy kan alim doomu baayam mooy Abu Talib Abu Talib maa ngi yonent bi la sallallahu alayhi wasallam doomam moo doon alim kon alim cousin wu yonent bi mu ne ak doomu baayam ba sin wu baay ak bëgg sin wu baatu doomu baay bi Alioune kan la Abu Sibtayni bàyyi ñaari sët ya ñaari sëtu yonent bi Hasan ak Husayn mooy seen bàyyi kan lay si musharrifa mu mel ni gaynde goo xamante ne rek musharrifa dafa taxaw rek di baaraat di gete musharrifa mooy mooy luy gete xam nga gete gaynde goo xamante ne dafa toog di pour xaar pour gete sa poids mooy di teew muus bi muy toogee di taxaw des di yor ndax bi suy génn mën ko jeex mu ne Ali ibn Abi Talib noonu la meloon ci yëfër daan xeex wala su daan dégg toog su ko jàppee rek nga xam jàpp ah julli jot yaakaar naa léegi mu jeex sax wa talxatu fàttalikul ku ñuy wax talxa talxatu ibn Ubayla Saadu ak Saad wa Zubayru Zubayru ibn Awam saiduhum ak seen said ah wa najmu lil aw lil awfi ak doomu awf abdurahman ibn awf summa amiru abu ubayda ibn jarrah man wafa kooku nga xamante ne moom matal kóllëre gi waay mu ne ñooy ñëpp ñii ñoo wóoroon yéen yàlla moom saa si mu ne fa yaa qabra jamiil kafirina jam'ihim qad ardaytumul mawla bi nasri mustafa ey yéen mu ne ey yéen ey yéen bammelab yéen bammelab yéefar yi yéen ñi bammelal yéefar yi xat arda ardaytumul mawla seen borom gërëm loo na leen gërëm na leen bëgg na leen bi nasrati Mustafa ngir dimbali bi ngeen dimbali leen moo tax ñu dimbali yàlla ñu yàlla may ñu dimbali yéen fóotal ñu julli rahmaan rahim mu ne ñooñu noonu yàlla mu ngi leen gërëmee bàyyi leen ne ñii yéen yàlla gërëm yàlla ngi leen gërëmee leen rek la leen gërëmee mooy bëgg bi ngeen bëgg yéen dimbali ngeen dimbali yéen waaw maa ngi jaar bi kasrikum mu ne bi kasrikum al asnaama jabrul qulubina wa shittum manaar al xaqi ala wa ashrafa mu ne yéen li tax ma fan leen li tax ñu war leen fan lu tax yàlla gërëm leen mooy dimbali bi ngeen dimbali Mustafa waaye nag bi kasrikum jab jabrul qulubina jeng ngeen suñu xol yi yéen saxaaba yu baax yi jeng ngeen suñu xol yi lan ngeen ko jengee lan ngeen ko boomee lan ngeen ko lan ngeen ko renforcer bi kasrikumul asnaam ci tas ak yàq ak tasaare ak mabal xërëm yi ngeen mabal xeex bi ngeen xeex contre yéefar yi ba mabal seen xërëm yi loolu moo jàngal suñu xol yi waaye ñun ñun seen soppe yi loolu la bay wax wasit wasittum te yéen yéegal yëgati ngeen wasittum yéegal yéegal ngeen manaaral xaq ci soorooru dëgg manaaral mooy minaare soorooru dëgg yéen a ko yëgati ala mu nekk luy kawe ashraf ashrafa nekk luy teesale mooy seen soorooy diine islam yéen yéen a ko yëgati soorooru dëgg aya allahu ey yow yàlla yaa rahmaanu ey yow rahmaan yaa xayu ey yow ki bi kiy dund wa waahibi ey yow maye yow mi nga xamante ne yaa may may yaay joxe akim yàlla na nga taxawalee bii ci man Baay Ñas arkaanan fonk li diini ka sa diine gi waaw ba waaye nee naa day tag yéen ba ci yàgg rek ba waa suru xal benn affaire waxaw mu ne yàlla nga na nga dëgëralee taxawalee sa pomp diine gii yow yow yàlla ci man Baay Ñas te sikk amul ne ponk diine gi bi ci njëkk ponk yu rëy cinq piliers d'islam mooy nga ne yàlla kenn la bañ ko bokkaale te bàyyi moo ñëw dindi bokkaale ci ci nit ñi ba nit ba te bokkaale su dañee rek diine ponk diine dëkk taxaw kon taxawal lan benn ponk bàyyi ne yàlla na nga taxawalee ponk diine sa diine gi yow yàlla ci man Baay Ñas uraaji wa rabbi al bayt minka tadaaruka uraaji maa ngi yaakaar wa rabbil bayti ak ci bar ak yàlla mi nga xamante moom moom moom bërëb bi di sa kaaba ga di kër yu baax yépp minka ci yow laa yaakaare man bàyyi tadaaruka ab dabaatal li xarni ñeel sama waa ñooñ ñoom ñooñ maas maa ngi yaakaar dabaatal ci bakkaaru gaay yi ci seen ñaaw ñaaw yi ak ci seen erreur yi yow yàlla maa ngi koy yaakaaree ci yow maa ngi yaakaaree nga dabaatal leen sama waa époque man li ma bokkal jamono mooy sama ñoom maas kon bàyyi ñaanal nañu li xarni ci sama ñaaw maas wa arjuute yaakaar naa ak dëxra giir jamal min ka ci yow te atufa nga doon nga xamante ne dañ may may dañ may jërëmal dañ may bàyyi xel raja i sama yaakaarit ba léegi kabiru lu mag la waay yow yàlla waa si lu yaatu la duuna fadli yi aya rabbi fadlan min ka lutfan dalafa duuna fadli yi yow yàlla maa ngi lay ñaan xam naa ne sa sa sa ngëneel koo ko joxul du dem yow yàlla maa ngi lay ñaan sa ngëneel googu nga xam koo joxul ngëneel du am a yaa rabbi fadlan jox ma ngëneel min ka bu jógee ci yow lutfan muy ñëwent tallat fa ci kaw ñëwent mu nekk ñëwent nekkat ñëwent ci biir ñëwent yow yàlla jox ma loolu man chebra ak samay ñaan fala raaxatun du du noppalu mukk li ab di ñeel jaam bi fii xayri naylihi mataali bi lu mooy ne am na yu muy sax mataali bi jaam bi du noppalu mukk tant que li muy sàkku ci yow amul yow yàlla ma noppul mukk tant que amoo te li may ñaan te loolu mooy lan waafat te dikkal na dikkalees na moom jaam boobu baxara juuti géejam tabe mu nayi faa géej gi nga xamante ni ndoxu tabe nga do ndox ngi day gën a yokk xam nga géej a tabe su dee mooy yonente bi géej gi li mu gën a bëri ndox tabe gi gën a bëri mu ne waaye ndox géej a tabe boo xam ne ndoxam dafa gën a yokk mu ne jaam bi dikkal na géej a tabe dikkal naa géej a tabe bi mooy sa soppe bi mooy yonente yàlla am saa sam taxaw naa ci buntam jël li ma laaj ñaan lii lépp yow yàlla man na ko bi jaay rasulillahi maa ngi ñaan lii ci barke rasulillahi xaq xeq yàlla na nga dëggal raja ana si njortu fa naqfu lahum ñu daal di mujj fa naqfu lahum asaara siddiqin wa muxtafa ñu daal di mujj nag di di aw ci yoonu ak topp njëggu ñi nga xamante ne ñoonu jiitu te doon topp yonent sallallahu alayhi wasallam wa jaayihim ak ci seen daraja barke daraja yow yàlla ak ngir ñoom ngir ñoom yàlla na nga xool ñoom ngir nga may ma li ma la ñaan képp koo xamante ne topp nga ci tànku ak trace yu ci yàlla moom saa su inde ilaahi nga xamante ne fa yàlla wajaahi ak barke ak ci daraja man ataa képp koom dikkal na baadahum ginnaaw yent bi ak ginnaaw ñii fii faw fii fii tax bi asaar mu muxtafa ci ci topp yent yàlla moom saa su ak trace ci barke ñoom ñëpp yow yàlla yàlla nga ma may ni ma lay ñaan alayhi salaatu yàlla nga ne yàlla nekk ci moom julli bihi boo xamante ne xaq xaq xadri boobu dina tolloo kem darajam wa alihi yàlla na nekk ci moom julli boobu ci ay ñoñam wa ashaabin ak ay saxaabam wa man qad taxat na taxan na fa ak képp koo xamante ne diine woon na diine l'islam bu doon diine taxan na fa muy diine bi nga xamante ne duñ fa bokk yàlla ko yàlla fii la fii la fii la fii la kaf kafaani jeexee kon képp ku bëgg a xam na kafaani dura makaral maakiri la kafaani boobu